comme ni ma daan leen ko defalee muy neex ngeen di sentir neex gi ci biir neex te ngeen na moon itam émission bi nga xam si ne moo di Folie Galsen ba tax na euh, nee naa leen si avec votre jeune artiste Weuz Comédien am na benn challenge boo xam ne mu ngi daw boobu ba tey challenge bi ñëpp xam nañ ko xanaa doo xool doo hippi boo ko waxee en français 5000 yu nekk sama poche yaakaar moom damay dem. ma wax jot na te ko waxul tooñ. bilaay la maanaam loolu. man ainsi damay ruus sa wax ak média nii. bilaay walaay xanaa doo xool. xanaa doo en français. <laughs> xanaa euh, euh, il paraît que tu <laughs> attends attends. beneen baat boo ko waxee lu te je pense que mooy. Euh, d'accord waaw. xanaa doo xool en français. Alors moo wax dëgg yàlla man jàng ma français. loo jàng. alxuraan. <laughs> no holdo himɓe yo <laughs> dude mo fidda mo kala wah wax ko ci arab dam day lo jama mënuma mënuma ko wax ci arab tamen en même temps wax dëgg yàlla mom, sama njàngu tollul foofu xanaa doo xool doo xippi boo ko waxee en français am nga junni ah, ma dëgguma français ah ay way sama yaay ma bëgg ci yow impression quoi tamas ki ak ni mu gan di jóge fu nekk di ñëw quoi est-ce que mënunoo defaat café Touba ndékki ne gën geer de. moom moom dama la jàng ma togg ma ba français di jàng. yow loo jàng maçon la jàng. parce que oui dégguma arab français nag mais dégg naa wolof nag parce que man maa ngi dëkk ci dëkk wolof bi. parce que oui tiser ise ise tiser yàlla yokkul te bokkul ci ñuy yokk. li nga wax noonu maanaam lan lay teg. yow lan mooy seen problème lan moo leen tax a jug yéen. non dama li wax nii lan lay tekki yow. li ma wax wa tiise ise tiise mooy yàlla yokkul bokk ñu yokk.